Euh, pour nga def journée de nettoyage des jafé parce que amna na kenn ku nga xamante ne def mako don togn sax néma Sanja, Sandiara euh, samedi la ñuy tilimal kon fogna naa bi ngay tilimal mëno ci sétal donc lolu mo waral euh, ñu tànn dimanche pour def ko rattraper wu tay nak euh, dañuy euh, sante yalla bu baakha a baax ndax li tax moy gis nañu mobilisation bi nga xamantene ni mo fi am motax dañuy gëreum sante wa sanjara gépp euh, gis ngeen sanjara dañuy organiser en 32 groupements féminins yo xamantene ni dañuy balé koñ ñom ñep tew nañ fi tay waye aussi ñi nga xamantene ni gis nga ko même chef religieux yi donc ñi yor walu diine bi tew nañ gis ngeen imam yi ñoo fi ñaan légui bu ñuy démarrer ensuite bolé ci wa église ak ñëpp ñi nga xamanteni ni ñoo bokk ci commune bi euh, donc euh, ñëpp tay dal véritablement euh, téw nañ fi pour que nu ñuy def ba setal dëkk bi waaye loolu doyul ñun dañu ne en dehors de dëkk bi ni ñu mobiliser woo dañuy ut aussi ay professionnels moo tax équipe professionnel u mairie donc mu ngi fi service technique yi nga xamante ne loolu mooy seen liggéey mais aussi waa UCG vraiment di len gërëm di len sante euh, ci li nga xamante ne ni ñoom la ñu appuyé nii waaye loolu doyu aussi dañu jël ñi nga xam ñoy ñooy sapko nga xamante ne samay xarit lañ ku nekk xamna na ne euh, wax euh, foofu laa di len gërëm di len sante vraiment ci mobilisation biñu def pour ñëw dimbali ñu wayé aussi dañuy gërëm sante ñi nga xamante ne ni ñooy waa PNUD nga xamante ni ci programme biñu am sanjala muy quartier vert challenge donc gis ngeen ni ñu mobiliser woo indi sen matériel indi sen xaalis indi sen ay nit pour ni ñuy def euh, donc ba euh, seetal dëkk bi euh, donc bi nga xamante ne ni maintenant loolu yëpp def nañ ko dañu indi nag ay matériels yu doy pour mën a fexe ba dëkk bi mbalit biñ ñu fi bale rek ñu mun ko tonni yóbbu ko ci fi nga xamante ne mooy dépotoir bi ci loolu gis ngeen am nañ trois benn taso yi nga xam ne indi nañ ko fi ñaari camion à ciel ouvert mais aussi li nga xamante ne nii mooy trois pelle pelle kii pelle mécanique boole ci aussi ay matériel bu ndaw ay balai ay fourchette ak ay ay ay râteau ak li nga xamante ne ni mooy ay brouette yooyu yëpp euh, donc ñu mobiliser ko tey euh, véritablement moo tax may gërëm ñëpp di sant ñëpp